saa su ne ak nu mu koy defee ak yéen muy moom Mody Niang di xamle saa su ne tolluwaay réew mi fu mu toll fu nekk dina génn kàddoom daal di wax loolee sax mun nañ ne ndigi ni démb ba léegi daanaka moom Mody Niang mu ngi artu ak di addu jëmale ko ci sénégalais waaye kàddoom gii de daanaka tey jii daf kaa jëmale ci ñi nga xam ne ñoo di leader politique yi la ci loolee sax xam li ak ndawu Sénégal yi la képp koo xam ne bëgg nga Ousmane Sonko wala kenn ku mu doon ci leader politique yi su fekkee ne daanaka bëgg nga fee jële président Macky Sall du ay wax du ay jëf dafa du ay wax ak du daw di xeex di manifester wu ci jëf la ak bindu ji ci loolee sax moom lay woo ñi nga xam ne ñoo di ndaw Sénégal yi la ba ci li nga xam ne ñoo di opposition bi la ci loolee sax dañuy taxaw déglu kàddu yi nga xam ni moo di ñaar daan na ko yëkkati ñëwaat. mais affaire inscription yi mais mes amis de l'opposition un mois pourquoi un mois yoo xam ni weer. boo ci dindee ñeenti dimanche mu mu ñaar fukki fan juróom benn ay des waaw pourquoi lu tax ñu koy def weer lu tax néew nit ñi ñi bëgg a binduwaat am na ñaari weer wala ñetti weer lu tax ñu yemale ko ci weer xam ngeen ko li ñu gën a bañ mooy gone yu bindu am na gone yu baree bari seen carte d'identité dañ caa def non votant doo mën a wote lank leen fab leen seen carte d'identité gone yi dem leen bindu ji gone yi yéen ñi am carte d'identité dem leen bindu ji ñi amul carte d'identité nañ gaaw wut carte d'identité le 6 gii lay tàmbali tey le 3 le 4 le 5 le 6 le 6 avril lay tàmbali ñaar fukki fan ak ñeent rek ngeen di am bu leen def ne euh, jikko yenn Sénégalais yi xaar ba mu des ñaari fan ak ñett ngeen dem di fa reyante déedéet le six rek dem leen yéen ñi def non votant lan dem leen ak seen carnet bind bind leen ma dañ leen di bind par force duñ ko yombal nag waaye mënuñu leen a bañ a bind dama ne Sénégal xale yi Sénégalais yi xale yi Sénégalais yi. pare bu ma si opposition sax waaye xale Sénégal yi gis nga lii ñuy dund lii ngeen di dund yéen parce que nun su nun jeexal nañu ba pare lii ngeen di dund dund ko 2000 ba nëgë ni bu naggee 2024 muy ñaar fukki at ak ñeent jafe-jafe yi ngeen nekk jàng bay bëgg a dee mënoo fexe ba am liggéey ñu jàngut mën a am liggéey ci napp gi mën a am liggéey ci mbay mi mën a am liggéey ci càmm gi man ko am feneen man ko am feneen man ko am feneen amuleen liggéey ñi ngi wuri di taxawal nekk ci Jakarta ak di jaay kab di nangam ab liggéey la sax waaye dañ leen a war a wutal liggéey wut ay industrie ay usine yoo xam ne da ngeen ci nangam nangam mais situation bii nu ne di situation bu metti gën a metti ci yéen xale yi nun jàll na ba pare bu ngeen sàgganee ba deux mille vingt quatre Macky Sall wala ku laal ci moom wala ku laal ci Ablaye Wade ñu fal ko 2024 wallahi bu boobaa li lu bu li lu metti li ngeen di dund bu dee benn dangeen ngeen dund lu mat fukk ci jamono yooyu parce que booba dañ naan waaw nun liñ def lépp Sénégal yi wóoluwaat nu joxaat nu góor gi noonu lu nu neex def ak surtout sunu pétrole bi ak sunu gaz bi ñëw xale yi senegal jóg leen dem bindu ji dama ne bindu bi moo ëpp solo football bi ci yéen moo ëpp solo ci yéen lamb ji moo ëpp ci yéen woy weeg pecc kat néew ma du kii mais football bi ñaata ñaata ci mën a yor seen seen seen li may wax ay Sadio Mané ay gaana Gueye ay ñaata lañu yéen ngeen di million. ay millions yu millions làmb ji lu mu leen mën na indi woy yi ak pecc mi lu mu leen mën na indi mënut a ñàkk ci gone waaye am na lu ngeen war a jiitalul loolu jiital leen lu leen jox liggéey te li ma jàpp ne pour ngeen am liggéey il faut ñu teg ci bopp réew mi ay njiit yu ko mate ñii fi nekk matewuñu ko ñu ci bari ci ñoom sàcc sàcc sunu alal rek lañuy def gone yi pare leen pour bindu ci rawatina ñiy topp Ousmane Sonko bu jógee yéen ñëpp ngeen topp ko Sonko Sonko Sonko Sonko bon c'est bien mais doyul ku nekk Sonko Sonko Sonko te yoroo carte daanaka defoo dara yaa ngay dimbale Macky Sall gone gu topp Macky Sonko naan ko Sonko Sonko Sonko wala. Macky Sall génn di romb ngay yuuxu naan ko Sonko Sonko Sonko am na lu gën a am solo loolu am na lu ko gën a am ful am na lu ko gën am fayda am na lu ëpp njariñ ci yéen dem leen bindu ji le ngeen taxaw jonn jox seen carte ki ngay yaakaar ne moo mën a yor réew mi ñu jëlee fi Macky Sall ak ñi mu àndal man de loolu la leen digal te mën naa leen a digal nag parce que seen bàyyi laa seen maam laa man jàll naa ba pare ña ñu mel na nun wutatuñu ci dara yéen rekk tax nuy sonn dem leen bindu ci waa opposition yéen ku ca nekk fa nga fare muy sa parti muy sa coalition insister leen wax leen gone yi nañ bindu ci gone yi ànd ak yéen nañ bindu ci gone yi ànd ak yéen nañ bindu ju te ensuite ànd googu ngeen ànd pour teg seen bët ci ni ñu nar a doxale élection yi fi bi woon ñii billaay bu ngeen leen bàyyee ak Antoine Diome ak Macky Sall mii ma gis ak ñii ñu àndal bu ngeen sàgganee danañ fi loo xam ne lii da ngeen naan lii warul woon a man am war am Sénégal affaire parrainage bi nañ ko seetaat affaire les deux lois là qui élimine facilement euh, articles là qui élimine facilement des des candidats mais kooku war nañ ko seetaat mbind mi euh, même mbind mi mais un mois bi war nañ ko seetaat et puis na ngeen def attention le président de commission yi yor euh, kii gis ngeen ñu ci jàppoon jàpp nañ fi président commission ci euh, ki inscription yi mu yor ay ay ay carte yu ñu ñu wax mu ne dañ ma ko un sous-préfet mu ne instruction yi ñu ko jox la dama ne fu ñu jaar ñoom am na mën nañoo tiise suuf te boo demee sax ñaga ca néew ma forcément ñaga ca parce que am na ñuy génn ay information yi ngeen di dégg ñu ni ñii ña ngay bindu fee ña ngay bindu fee ña bindu fee te bindu jotagul néew ma am na ñi ngi koy wax bu ma leen weddil dara waaye li ca li ca ëpp doole mooy nan nit gone yépp dem bindu en masse bu ko defee dañ leen di noyé mais amis de l'opposition plateforme boobu jublu leen ci jublu leen ci euh, ce ministre de l'intérieur la bu ngeen mënoon a fexe sax ba du nekk minis de l'intérieur waaye kooku moom c'est la croix et la bannière Macky Sall moom du ko fi jële mukk di indi koo xam ne kii bu ñëwee dana jaarale ci élection yi yoon Macky doon na ko laaj nag ba muy laaj réew mi daa contesté woon Ousmane Ngom ne na fa jóge waru la mën a organiser élection bañ keroog bañ ko falee Yérim Seck da ko ko laaj mu ne noo man mosuma ko wax mosuma wax ne du ma ki nangam nangam mu ne ko ndax doo doo doo fi jëlee kii mu ne ko du ma ko def du ma ko def Macky Sall kii la fay bàyyi te kii mu ngi ko wax mu def. kooku lu lu mu wax ñi ko wër ñu def ko plateforme boobu mes amis de l'opposition jóg leen ci ça n'a rien à nag avec kee nekk candidat kee nekk candidat kee nekk c'est-à-dire que là vous avez un intérêt commun un intérêt commun mooy teg seen bët ci procédure électoral bi code électoral bi nangam inscription yi et le parrainage yooyu yëpp war ngeen ko seetal loolu lépp war ngeen ko seetal même bon bref yéen ma gën a xam lépp man ba tey dama leen ko wax damay présenter mes excuses je ne vous donne pas des leçons je ne vous apprends rien je n'en suis pas de taille et je ne me le permets pas mais damay wax li ma yaakaar ne moo gën yéen a ma ko gën a xam le danger. nous menace avec ces gens-là ma ko gën a xam wu jóg leen ci jóg leen ci jóg leen ci gone yi dem leen dund ji maa ngi leen di gërëm di leen sant. moom nag Modou Niang kàddu yi la daal di xamle jëmale ko ci li nga xam ni ñoo di sénégalais waaye tamit jëmale ko ci leader politique yi jëmale ko ci képp koo xam ni pare nga pour jële fi kii di président Macky Sall moom mi la Modou kàddu yooyu la daal di xamle mu nekk kàddu yi nga xam ni kàddu yi dëggu la kàddu yu jub la kàddu yi tamit di nga xam ne yu neex a dégg la ndax kat xeex am na solo lool waaye tamit yor loxo yi ngay xeexee ak tànk yi ngay xeexee daf kaa ëpp solo bu baax a baax te loxo yooyu ak tànk yi nekkul leen li nga xam ne lu dul les cartes électeurs moom nag loolu la daal xam xamle wéy leen di abon fi nga xam ni moo di Télé Futur 70 ndax lu fi information xibaar ak jàngat ñu leen koy defar salaamaaleykum wa rahmatullah taala